Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah bu ngeen bëggee jot suñuy vidéo da ngeen di abonné ci TV seen YouTube Samba Xassida TV boo duggee nga abonné nga bés kolos bi ndax bépp vidéo bu dugal rek nga mën koo jot dawal gaaw Samba TV bii di Samba Xassida TV ngir ngeen mën di jot suñuy vidéo bu fàttee bés kolos bi ndax mën a jot bépp vidéo bu dugal T'as de